Ah, jërëjëfati mbokk yi ànd ak ñun seetaan déglu tey nag dañu daal di dellu ci waat duggaat foofee nga xam ne moo di Casamance cabinet Biorahma moo ngi yaatal yëf yi ba jululu waaye bii nag dañ ko daal di indi nag si biir Ziguinchor indi ko ci quartier bi nga xam ne fa la jumaa daal di juuf nekk te jàkkaarloog li nga xam ne moo di sédiment bi kon yow mi seetaan ak déglu te dëkk ci wat woowee yow mi seetaan ak déglu te dëkk Ziguinchor yow mi seetaan ak déglu te saa su yaa ngi seet nan ngay def ba am saabu yu baax yi diw yu baax yi crème yu baax yi lépp lu baax te nga koy gis ci chaîne YouTube Biorahma ak di ma suivre ci TikTok bi jëlal numéro boobu 77 243 13 38 77 243 13 38 fii nag Ziguinchor la ci quartier bi nga xam ne fa la Juma Dadi Diouf nekk te mu jàkkaarloog li nga xam ne moo di sédiment bi képp kuy yeewoo Ziguinchor xam nga bërëb bi bërëb bi nag foofee la ñu bëgg a yaatal yëf yi ba képp koo xam ni ittewoo nga yëf yi la ngay def rek mooy daagu nànk ak si foofu gannaaw ba ñu ubbee fële nga xam ne moo di jululu waaye bii nag biir Ziguinchor la bii nag mooy quartier bi nga xam ne Jumaada di Juuf nekk te mu jàkkaarloog sédiment nee naa la téléphone baa ngoog 77 243 13 38 miin ngeen ko xam ngeen produit Biorahma kon jëlal téléphone bi soo ko woowee loo ca bëgg lu ne moo xam gamme bio Citéderme moo xam forma bio forma moo xam crème moo xam lépp loo xam ne lu baax la téléphone baa ngoog waa Ziguinchor jël leen numéro boobu jaa ngeen jëf.